jërëjëf mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su fi leen tàmm di nuyu di toppal lépp lu nga xamante ne bii mooy làmb wala bokk mooy actualité bokk ci réew mi dañ koy jëlee jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel saa su ne di wax kon ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi di xaar vidéo yi di wàcc en temps réel ngeen di ko mën a am comme ni ñu ko bëggee saa su ne comme ni ñu ko waxee woon rek ci koor gi nee la képp ku bokk ci làmb rek moo xam ci làmb rek dinañ ko fekk fi mu nekk jëli ko waxtaan ak moom xol naka la eh, waajee koor gi ak naka lay dundee koor gi tay nak ma ngi fi nga xamanté moy eh, place Fallou Ndiaye ku wax Fallou Ndiaye nak wax njital Ndiaye production muy promoteur di nek ci lamb di ci liggéey lu am solo di ci bay waram ñu seet ko nak fas waxtaan ak mom koor gi ak combat yi nga xamanté bi taxaw na nek suñu kanam dañ koy nuyu bay ko mu nuyu ñuy sibu su ko ñu mëna ko ne waxtaan bi Fallou ma lay nuyu baax a baax di la siyaar waaw ci ñu ngi lay fay di am bekté nga dal ñu di la ziar di la jox sa way di la magal bu baax di nuyu mbokk internet yi di la nuyu bu baax tamit euh, di nuyu monde de la lutte di nuyu Sénégalais yëpp di ñaan koor gi ñuy dugg yàlla ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbi alamin mu nekk koor yi gën suñuy koor te bañ a nekk suñu mujj di koor di ñaan it jàmm ci réew mi comme ni mu fi amee di yaañ jàmm ji yokku président bi ñu fal mhm. ñaan yàlla may ko kàttan ak doole ju mën a yore réew mi ki nga xam ne moo jeexal ñu ñaanal ko moom it fan bu gudd ak wér bu mën a continuer ci ay njabootam mana a suivre carrière am comme ci leneen. Mm-hmm. ndax koor gi. waaw sant rek waaw am njaay ngeen seeti ngi njaayeen mom day ne xam nga njaayeen mom turu ni dundé eh. ñom lek sonol len so wa du ay beccëk sax lek mom man sama lek li jëpp guri la man lek beccëk sonol mako quoi mm-hmm. moo tax koor mom sama yeuf la du ma nek lo xam ni damay sonal ba ma ci am ay gàllankoor franchement doo ko jël dëna dal non du ma ko jëlee dënn ndax koor mom man parce que tàmm ko même bu dul sax des fois dañuy wor yenn jour yi mm-hmm. te lepp mën ta ndax jaam daa war di topp ay ndigal rek te moom dañ cee war di ci góorgóorlu comme mënuñoo def yëpp it ñuy góorgóorlu ci li ne mooy priorité yi te yàlla mu ñuy suturaal ñu ngi ciy jiim alors ah sant yàlla lay nekk ñun rek te koor gi moom xiwal la mbégte la ko xool sa bopp rek da gis ne lii am na changement bu rëy et bi ñu umee koor ak léegi ci sa côté wér-gi-yaram ci sa côté mental sa lépp ndax koor weeru jaamu yàlla weeru weeru weeru seel la daal weer la bam ne nii moom macha allah dafa bari ay ngëneel daal am na ñu ko fekke woon daaw ren fekke wuñ ko tey loolu loo ciy wax. waaw di leen ñaanal yàlla rek suñ boom xayee ci àjjana fi daw si suuf sedd seen kaw di leen ñaanal ñu rëccu lu doon ñëwee ci àdduna suñ boom yóbbu leen ci àjjana fi daw si ndax àdduna moom noonu la ñu ngi ñaan rek yàlla chaque année mu ñuy boole ci limu déwén bi di ko ñaan ñun ñi fi nekk ñëpp may ñu wér may ñu wérle may ñu kàttan ak doole joo xam ne nañ mën a fekke koor déwén bu neex yàlla. am na solo loolu entre parenthèses mais. làmb ji bir ben wer bu gatt ci wer koor gi tay mama bi promoteur yi comme ni koor gi tejey ni ci la lañuy nek combat dañuy tok di xalat combat wala taxawal wala dañuy euh, pause ba koor gi jeex ñu nek seen activité waa ni actuellement non comme ñun dañu am journée le 19 mai euh, alors li wa def taxawal nañ di combat yi taxawal nañ grand combat bi ak 8 euh, combat 9 combat yi xamne mo ci dess muy combat yi ndaw yi yeb taxawal nañ ko kon actuellement dañuy ne ci programme nan la ñuy déroulé suñu programme suñ communication ci lool lañ nekk fan yii di étudier yi xool di def ay di waxtaan ak équipe bu Ndiaye production bi ndax euh, le 19 mai dañ cee war a benn série boo xam ne nii série bu am solo lay nekk sénégalais yi dañ ci gis seen bopp tey dinañ xam ne vraiment liggéeyal nañ leen liggéey bu mu solo fan yi nag ci waxtaan boobu lañ nekkoon ak réunion yi moo tax amuñu sax jot mais bientôt incha allah nañ ko lancé nañ ko démarré nit ñi tamit buñ ko bu sottee incha allah nañ ci gis seen bopp bu baax. ndax journal 19 mai dañ ci bëgg a def communication am ne ko def suñu ay lambo ndax lambo dafay ànd ak communication moom du doy ndax damay dégg sama benn waaye naan ma communication bu doon doy euh, opéré opérateur euh, kii euh, ligne téléphonique yi duñu duñu duñu publicité du ñu publicité ndax kenn gënu leen a siiw ci dëkk bi ndax ku xëy di nga jënd kee di woote di nga voilà comme gën ñoom ñooy def publicité nag gën ñun ñi nga xam ne nii vraiment ay petit combat lañu yor rek yu ndaw di jiim moo tax il faut ñu jiima góorgóorlu ci communication ba nga xam ne daal sénégalais na gën a xam fan lan jëm nañ gën a xam suñ programme la te loolu dafa am importance Ndiaye yàgg na innové yàgg na taxawal ay combat mais dañuy gis ci le 19 bi nga jëm muy diggante Diop muy ak Siteu bu Ngor engouement bi combat bi am coow combat bi am dafa mel mi ngi soog am bi nga dal teg làmb léegi wala non lii moom bettuñu ndax boo xoolee dafa am bër Ada Fass boo xoolee Boy Diop ak ki nga xam ne mooy euh, booy ba jeex jàmm amoon na comme buy bu mel nii mais souvent yooyu mun na ñàkk ndax ñun xale yi ñu dëgg la dañuy jël comme ni ma koy waxee rek ay ay jeunes jël ñu tolloo doole boole leen duñ boole ay paak ay wala ñu boole yeneen affaire c'est-à-dire day indi ay day indi day indi sa communication da ci yàq lu bari. wala da ngay boole ñoo xam ne nii cinquante cinquante cinquante da ngay xam ne ñaar ñii moom. kenn mënu sa moom di cinquante cinquante la tey boo xoolee si tabu ngoor ne Boy Diop. ñaari mbër la ñoo xam ne ni ku ci ne lay topp bi nga ciy daanu ndax say supporter duñ la ko pardonné kon liggéey lañ ciy def bu rëy rëy rëy waaj ku pare ñëw nga xam ne lii amateur bu ñu xam ne dañu xam ne combat la mais dafay may combat boo ñëw da nga xam kii mooy daan boo ñëwee ci làmb ji da nga gis ne ki kon loolu du làmb ñun wax dëgg yàlla duñ tëgg làmb yooyu suñ sañoon daal dañuy tëgg làmb boo xam ne nii làmb neex lay nekk làmb jàng lay nekk wax dëgg yàlla suñ suñu xel daal néew ko ci tëgg combat yooyu duñ ne nag ko tëgg définitivement ndax moom Euh, duma def jawatu ci wax li am solo dal moy lo bëggul neel bëgguma rek lool mo ci am solo so demé bëggit xam ne ay circonstance motax nga bëgg ndax lamb nu ne lay doxé dal nu lay ñëwé <laughs> ya ma gëna a xam waaw <laughs> wa làmb nu lay ñëwé jeer lu ne ma daab mais combat bi coow dafa bari trop avant muy taxaw combat bi taxaw encore coow li bari ñu gis seen premier face to face ni mujjé yaxwé waaw non xam nga comme ni ma ko waxee rek face to face bi man gëm naa ne woote na yàqu ndax euh, dañ fa def ay ay investissement am xam ne wax naa ko am na ay mbër yu bëri sax combat royal te amuñu plateau yu mel noonu ay mbër bëri fi ay cinquante millions cent million te amuñu plateau yu mel noonu kon muy Siteu bu Ngor muy Boy Diop bu ñu amee chance ñu organiser leen signature bu mel noonu face to face bu mel noonu dañ ko defee seen adressé génn ay moyens suñu frère jàpp ci bu baax ndax boo xoolee tey ni ma ko waxee rek boo xoolee écran géant yi fi nekkoon podium yi lépp moom moo fa andi pour jappelé ñu pour accompagner ñu ndax man na baña def mais lool da fay xol né mom ci réew mi la nek yam ay produit yam ay rakam ne fi di gëngu ci lam muy accompagner di leen jappelé ndax bu fekké né promotion zéro man na publicité fenen fu vraiment suñu événement yi ndax yaakaar seen euh, Sa a ngi fii Tapha Tine fi en balde ngi fi tay combat am ne bu promotion da lay wër yaakaar na lem ko mën info am mënu ko amé suñu ay combat kon dama jàpp ne moom daf ñu accompagner pour jàppale ñu rek mais du leneen wax dëgg yàlla man noonu laa ko gisee te noonu laa ko jàngatee mm. muy suñu frère yàgg ñu accompagner ndax depuis tournoi TFP bi lépp lu ñu dugg bu ñu demee toog cee wax ak moom du ci du amul sax arrêt passé danaan mag di xarit vraiment ñu seqee relation yi solo mu ñuy jàppale nag teer ci lu baree baree bare lu nit ñi xam ak lu nit ñi xamut ndax koo xam ne nii heure boo ko woowee ne ko grand kat man lii laa bëgg wala lii laa xalaat mu wax la ca xalaatam wala mu jàppale la ca yaakaar naa ku baax moo def loolu moo tax na toujours dañuy wax produit yi nga xam ne jaay muy produit jaloor muy diwlin bi muy ceeb bi muy macaroni bi spaghetti bi sénégalais il faut ñu koy ndax ci biir mi la jëm waat li muy liggéey jëmul jëmale ko fenn ci réew mi rek la waat ci réew mi la koy defaat Aziz ay bu amoon euh, centaine de milliards it lu génn réew mi ñu nekk lépp ci biir réew mi te réew doomu réew mi ñoo ci liggéey kon nag ku noonu dafa jar doomu réew mi di ko jàppale produit yi muy jaay sénégalais di ci consommer ndax bu fekkee Sénégal ñu koy consommer normal toujours day nek rupture mm-hmm. zéro tay muy diwlin bi muy ceeb da war di nek sax rupture moy day manqué li tax mu war di manqué moy sénégalais ñoko war di consommer te bu ñu consommer inshallah sax mm-hmm. chaque day manqué ba nit ñi diko taxaw naan ko nekkoon né ñew té loolu lañ koy ñaanal yalla loolu lañ bëgg mu am ko di nuyu tamit su mel suñu frère pap suñu kilifa pap du fal mm-hmm. gis nga taxaway am ci ñun daf ñuy taxaw accompagner ci lepp lu ñuy def mu ne ca wax deug yalla denku ñu leppam ñu and ak mom diko jappalé ci lu bari te xam naa bientôt incha allah bu koor gi jeexee ah di ngeen ñu dégg ci lu rëy rëy nag ndax instant yi comme dëkk bi moom élection yi jeex na par production léegi ngeen déggal ko mu commencé ay activité bu ah, neexee yàlla waaw non ci yu ah, rëy non ci lu rëy bu neexee yàlla ku mel ni jiyee tamit vraiment suñu frère di ko ñaanal foofu mu ne ci màkk yàlla na ko suñu boom defal tawféex mm-hmm. defal ko fa lu gën ci moom ndax vraiment daa dem umra loolu lu baax la vraiment di ko nuyu di ko siyaar gis naa xeer yi may sànn nag muy garaawul man lu baax laa koy waxal naa ko bàyyi bu sax sa na combat boobu daa a ñëw tas combat bi jox jox job de avance xaalis ko double comme li nga ko fay waaw non mais jiey def na ne pour yàq waaye mënu ci dara jiey amul amul xam-xamu yàq ko sax na yor xaalisam na def lu ko neex waaye mën ta yàq dara ci jiyee a solal ci àdduna mais nag nit ku baax la wax dëgg yàlla di sama mag sama xarit sama frère séq ak ay jawaram ay kóllëre teranga ay jorbaatam ay doomam vraiment muy nit ku baax ak ay xaritam nit ku baax la daal wax dëgg yàlla ku mel ni Alaaji Jaande Diop moom it suñu nga xam ne ne fatigabul bi sànq sax ñoo àndoon ne affaire yu ñuy réglé muy sama mag sama xarit moom it di yëpp Tafa Mbeng boo ko tegee ci moom ak am na rek nuyu nga ñëpp ak Fallou Kapo euh, euh, mu ko waxee Siteu bu Ngor defoon nañ face à coow li bari deuxième face à face ndax dina amaat wala du amaat. non ci deuxième face à face day am troisième sax day am deuxième ah. du am benn problème dèjà nii ñu ngi bëgg benn face to face avant koor gi ñu ngi ci doon xalaat am na yaakaar. ci biir koor gi bëgg nañ cee def ci semaine bi incha allah. Mm. benn face to face moom lañ nag boobu moom benn affaire lay neen ndax ci biir géej gi lañ ko bëgg a defee rabbi waaw eh. dañuy luwee ñetti bato incha allah rabbi eh. Boy Diop ci benn euh, Siteu bu Ngor ci benn ñun ci benn ñu toog waxtaan daje fenn benn angal toog waxtaan ci biir géej gi incha allahu rabbi loolu lañ bëgg te incha allah lañ koy dem ndax bëggoon nañ ko ci Boy Diop jeex jàmm mu sotti doon mais bii moom incha allah dañoo bëgg incha allah mu nekk lu sotti loo xam te ni tamit lu mën a nekk lu nekk lay nekk. mais même boolam boolay euh, kii nekk ci bata kii nekk ci bata ba cëpp dugg ci ndox bi daje ñoom ñaar du am. waaw non xam nga Diop ndox nag. même bu seetee même cëpp it Diop du sit xam naa Diop nante moom du fi ne di cëppoonte ci ndox moom ndax <laughs> damay bañ mu lab ci ndox mi <laughs> waa non mais lool moom du am incha ndax vraiment dañ ko organiser noo xam te nii euh, ku ci ne di nga yem sa place ku ci ne di nga xam li nga war wax di nga xam li nga war a def incha allah ñu liggéey ci liggéey boo xam ne liggéey mucc ayib lay nekk nee naa démb booy jóob comme si tam war moo la gën a may ndox nag moo la gën a man ndox su la neexee ngeen dugg ci biir ndox mi eh. ngeen xalante bu dee cinq minutes sax ñu xoo ñu arbitré wala ngeen bëri wala ngeen bëree premier combat ci biir ndox mi ñu xool mais damay xalaat nag si tam groupe avantage boobaa ndax si tam moom lébu la mais daal vraiment bëgg nañ cee créer innovation yoo xam ne yu am solo la ndax bëgg nañu def face to face boobu bëgg nañ cee def benn série boo xam ne nii Thier ay acteurs yu mag yu ci biir mi incha allah nañ nañ waxtaan nañu ak ñoom ba pare non avant combat bi lay nekk incha allah non série bi incha allah ba euh, bëgg nañ ci kàttanu yàlla balaa la 15 août incha allah non balaa la avril incha allah bëgg nañu mu commencé daw bu neexee yàlla balaa la 15 août bëgg nañ premier épisode bi commencé daw jëm le 19 mai incha allah rabbi mais série bu solo lay nekk mhm. waxtaan nañoo ak pare lépp luñ ci war def nañ ko li ñuy xaar mooy démarrer ko bientôt te incha allah du yàgg ci biir semaine bi ñu d incha allah jublu ci affaire bi en tout cas daal nañ ci liggéey liggéey xam ne ci yeer Sénégal yëpp nañ ci gis seen bopp ndax suuna bi nag ah. lamb ji PPV lay nekk waaw PPV lay nekk seen affiche ñoo koy teg ndax dafa am lu mu laaj te li mu laaj yëpp dañu ko ci bëgg a def pour diaspora bi mën cee gis seen bopp Sénégalais yi gën seen bopp gis seen ndax tey bu ñu def PPV 100 pour cent la def Sénégal ak diaspora bi yëpp cest à mooy képp ku bëgg a jënd ku bëgg a dugg bi da mais balay boobu nag pour nga mën a jaay ni ki code mu gis ko yow yaa jaay komba ba combat bi jar jar lim waaw ba mu jaral leen nga xam te ne tey Espoir loo jaay jënd Sénégal loo jar jaay mu jënd ndax hmm. combat am nag sénégalais yi ñoo ko soxlaan waaye Ngor soxla nañ ko yëmbal soxla nañ ko lépp lu waaw axlu lamb ko soxla amateur yi soxla nañ ko waaw non moo tax ñu dëgg ko ci eh, <laughs> loolu moo tax ñu waaw non dañoo xiifante bu baax sax te da koy wane seen ay wax da koy wax ne seen supporters yi boo duggee TikTok bi seen supporters yi da koy wone bu baax a baax a baax moo lay wane combat la xam ne nii ñaari champion yëpp dañ koo gëm fonk ko ndax kay képp koo xam ne nii yaa ngi koy bëri ci ñoom ñaar bëgg nga gañe combat bi loolu nag leen koy may mooy ñoom ñaar ñëpp ñu liggéey fair play xam ne nag ndam li du génn Sénégal tamit ay frère la ñuy nekk te ay frère la ñuy ko nekk adversité bi le 19 lay jeex après dañuy ko ne nekk ay frère war nañu mën a séq leneen ak lu làmb sax ndax làmb loolu rek la mais avant làmb moom tension bi na metti na saf mais bu jeexee jeex na ko am na solo kon loolu euh, mooy euh, wàccaayu le 19 mai pour le 19 mai loo jox amateurs yi rendez-vous. waaw non li ñuy jox amateurs yi moom euh, le 19 mai innovation yi na bàyyi ji bi arène nationale bi comme promotion bi ni muy bëree rek. incha allah dina mais moom biir national bëgg nañ fa créer innovation ay surprise yu mag a mag a mag a mag ndax nag bëgg nañ fa spectacle sous et bëgg nañ fa tamit vraiment ay décoration yoo xam te ni dinañ gis ne daal vraiment le 19 mai daal nañu xam ne événement la ndax ñun suñu gëm-gëm toujours tier mooy ni koy waxee rek mooy espoir yi ñuy gis ay booy Siteu bu Ngor ay booy Diop 2 cest ay jeex jàmm Siteu bu anti groupe boobu noonu sos waaw ñoom fils ay booy la ñoo xam te nii mën nañoo liggéey ci ñoom lu ne mën nañoo liggéey ci ñoom lu ne ay fëgala bu ngoor boo xoolee tey ñooñu ay espoir ay mamaleen bu jaxaay ay armée 2 ay ñoom trompeur 2 bàyyi na ay espoir yoo xam te nii euh, dinañ liggéey ci ñoom liggéey moom bëgg nañoo liggéey ak ñoom moom dañuy daal waaw non bi mooy dañoo joxante cër joxante respect rek suñu diggante du mbër ak promoteur bu frère ak frère la mag ak rakk la loolu la ñu gis ne ay xale la ñoo xam te ni ñu ma limal am nañ euh, lamb day am ci ñoom yaakaar te bientôt incha allah bokk nañ bokk ci ñuy tee lamb ndax nag gëm nañ li ñuy def te fonk nañ ko te nit ki amal gëm-gëm fonk li ngay def rek foo mënta àgg amul en tout cas daal incha allah le 19 innovation yi na bari tey dinañ xam ne lépp lu ñuy defal mbëru mag bu ne yàlla le 19 nañ ko gis ci arène nationale bañ xam ne xale yii ay mbër yu mag lañ comme mbër yu nag yi mm. ndax Thier ci côté mobilisation moom li ma woo dañu fa gis loo xam ne doo gis ci combat yu mag yi franchement parler waaw non face à face bi rek li neen ci biti yàlla xam ne xajul ci biir euh, boo xoolee bi muy waaj a boo xoolee yéen ci biir woon na fees te li nekkoon ci biir waa Ngor yi kenn duggagul woon euh, waa yëmbal ñi xaaj bi ñoo dugg ñeneen ñi ñu ngi woon ci biti di rank pour dugg malheureusement li am am mais kenn du ko rafetlu ndax buñu sañoon mu am mhm. dégg naa sax gars yi di sànni xeer naan fàllu loolu da koo neex mais loolu ndax waaw non mais xam nga tey bu fekkee da ngay jël ay matériaux jàmbur ñëw fa nit di la jàppale jël ay lu toll ni écran yooyu teg fa jël ay podium teg fa ñu luyee ay siège jàmbur indi ay te terrain adressé ngoor mhm. ñu leen duñ ko joxee ndax bëgguñu ay violence yi sonn bi alors bu ñu la ko joxee da nga bëgg a def kémtulaayu kàttan ba li ngay def àgg mhm. te yàlla xam ne ñu leen def suñ kémtulaayu kàttan ba li ñu def àgg mais nag malheureusement bi man fekk na ma génn dem di sumeeku ji pour solu sama yére pour ñëw toog ci plateau bi pour signature bi commencé. malheureusement sama ginnaaw la am bi mu ñëwee fekk naa si trop tard. Mhm. gars yi doon nañu affaire yi affaire yi saf na nit ñi kan xamatoo foo jaar. doo ci man dara. mais daal incha allah rabbi yéen festifes yi ñëw duñ gis loolu. Mhm. dinañ gis ñaari mbëri taxaw def festifes yu am solo jàkkaarloo mu neex. Mhm. ñëpp gis seen bopp incha allah rabbi te daal du ko yàq bu neexee yàlla. am na solo tolluwaayu réew mi fi mu toll nii le nouveau président euh, Bassirou Diomaye Faye noo gisee. waaw non Bassirou dañ koy ñaanal rek président yéen bi oyof ci kawam lool sax ak ñi mu àndal ñëpp di leen wax nañu jéel nañu jéggale jélale fàtte jublu ci li nga xam ne mooy priorité réew mi xam ne ñoom ñooy président bi gën a mettile fu leen fale ci Sénégal ndax ñoom ay paa fayu leen ay maire fayu leen ndaw ñu moo leen fal te ndaw ndaw ñoo ñu leen fal liggéey moo tax ñu fal leen bëgg liggéey na moo tax ñu fal leen comme yàlla dogal na réew mi am na fi ay ressources naturelles yoo ne mu ngi fi am nañ pétrole am nañ gaz am nañ or am nañ zircon am nañ yooyu yëpp am nañ fer alors yaakaar naa tey ñoom bu ñuy jubloo ci yooyu man dama ne tey euh, état bi il faut ñu biseen ay bët di xool comme bi fi ñu fi nekkoon ak ñii ñëw euh, man li ma gëm ci euh, Thier Sénégal dangay jël région bu ne nga jël fa dix jeunes yoo xam ne nii ambitieux la jàng même bu dee jànguñu man miin mbay nga yow jeune bu ne nga yëkkati minimum cent millions nga jox ko te yaakaar naa bu fekkee. Euh, kii bu ne da nga faa jël dix jeunes jox ko ne million nga ngay leen kay dama bëgg yéen ngeen jàppale dëkk bi gox bi ci mbay mi jàpp naa ne jeune bu nga ne jox nañ la cent millions déwén bu ñëwee cent millions yi bu yokkut bu ñu gisee daa wàññeeku ne lu la si buñ ko defee mbay mi na suqaliku région bu ne dina am dix jeunes yoo xam te ne ku ne yaa ngi ak cent millions deux cent millions yoo xam te ne dañ la koy accompagner pour mhm. mhm. nañ dem bay dundee li nga xam ne moom la ñuy bay ñii di bay soble ku ne secteur ba nga ne la la fa am nga koy bay ñii di bay soble ñii di bay tamaate ñii di bay kaani ñii di bay pooba ku nekk li ngay bay rek bay ceeb ñii di bay lépp ñu koy bay ci biir réew mi léegi imagine zone bu ne nga jël fa 10 personnes nga jëm Diourbel région de Diourbel bi nga jël fa 10 dem région beneen bi euh, région de fële euh, Fatick Casamance fu ne nga dem fa jël jël fa fu ne rek 10 jeunes bu joxee nga jox ko 100 millions 200 millions ne ko lii sa domaine bi nga nekk ci mbay lañ kenn ñeneen ñëpp dañu am résultat yeneen ay année ñëw nga jëlaat di jeune dinañ dem ba suqali mbay mi lépp ñu koy bay lépp ñu koy dundee Sénégal créé ay chambre foire yoo xam nii bu ñu bayee soble lu ñu mën bay mu war a yàqu du yàqu Sénégal na développé te duñ sonn jeunes yi nañ liggéey ndax koo jox 100 millions 200 millions minimum jàppal ne raison ba jàppal ñaata jeune koo jox 200 millions 100 millions jàppale ne minimum na jël 50 jeunes wala 100 jeunes yoo xam ne ñoo koy jàppale ci mbay moom pour dëkk bi jeunesse bi am ci loolu jàpp dëkk bi développé day yomb mais nag malheureusement ba comprendre ñu mais daal ñu ngi ñaan Bassirou Diomaye Faye am nañ ci moom yaakaar bu baax nag ndax li tax Sénégalais yi fal ko yaakaar doo nga tax ñu fal ko ndax niñ ko fale nii c'est la première fois ñu fale ko président Sénégal kon fexé ba dal bu kenn jambar ci wala jambar bi bu mu bari ndax ñaka jambar jàmbat mënut ñak ndax kenn mënu lepp waye dal bu mu bari comme li amone dal ñaan ñuko yalla wax deug yalla amna na solo fonds bi fu mu tollu wa non fonds bi mu ngi avancer bu baax wax deug yalla tam nañ yaakaane na soti mhm. ndax it euh, kilifa moko digé won te état continuité la te amna ñi xine processus yi mu ngi avancer procédure yaangi ngi mhm. te am nañu yaqin allah bientôt bu seen bi ñu nekk tay la euh, jeudi bu euh, ci bir semaine bi bala samedi semaine prochaine am nañu yaakaar ne dina sotti bu neexee yàlla. jaay kontaan naa si looy tàggatoo. kontaan nañ ci yéen am mbégte di nuyu équipe bu Ndiaye production bi di leen nuyu bu baax a baax di nuyu monde la yëpp di leen wax nag ñu leen di balaax leen balaax non bàyyi ji tar ki naa si mon ami <laughs> Mor bàyyi ji li moo Ndiaye production borom borom borom events <laughs> nee na si tamagor boo jóob tar ki naa events jam ñaajo <laughs> waaw mais lamb ak coow ñu ànd bàyyi ji suñu frère la suñu rakk la suñu xarit la vraiment di ñu accompagner di ñu taxawu di ñu jàppale ci côté bu ne bu ñu yëg bu ñu yëgul kooku suñu rakk bopp la man baaj gi sama rakk bopp laa ko def Thier sama rakk bopp la non fii laa ko def di <laughs> nuyu ñoom Cheikh Seye la ba bere Ndiaye bu Ndiaye production bi yëpp ñu ngi leen nuyu leen ziar di leen jox seen wàcc wax ne Thier am nañu mbégte ak kontaan dama baax a baax jërëjëf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 militaire de Barigny, bâtiment alimentation avec construction d'une fondation micropieux mbokk fondation micropieux nak moy li nga xamante ni bâtiment bi du tegee ci suuf si da ngay defar micropieux yi ba noppi daal di jël bâtiment bi teg ko ci kaw fondation bi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 575 50 25 wala 33 824 57 43 ETDR accessible ne pour ñëpp suñu adresse mi ngi fii ci Pikine ci technopole bi arène nationale villa numéro 406 ETDR moo lay Samusa sàmm bâtiment ba am durée de vie bu yàgg kon nag gars ETDR e ndax nag